mbokk turfis yi asalaamaaleykum week-end de Noël bu rëy ànd ak bànneex samedi 24 ak dimanche 25 ngir waajal grand prix d'Amérique bi LONASE indil leen si mass commune international bi tirelire bu duun ci kente plus bi tollu ci million millions 500 mille francs CFA waaye LONASE yemu ci dimanche 25 ak grand prix Strasbourg bi LONASE ñëwati ak beneen tirelire kente plus mu tolluwaat ci 327 millions 500 mille francs CFA si masse commune internationale bi. kon nag mbokku turfistes yi à vos marques pariez. C'est possible et disponible dans tous les points de vente Lonase. Tous de 18 ans.